maa ngi delloo ziar. ñu fekk la julli it comme d'habitude ah parce que sa fait plus de dix ans ma la fi gis kër Sëñ Mbacké Madina se trouve waaw di am mbégte lool lool lool ziar leen yëpp ziar mbokki jullit yëpp di am mbégte ñëw fii ci kër Sëriñ Mbacké Madina sama sëriñ sëñ Ibrahima Mbacké ibnu Sëriñ Mbacké Madina mu sëñ mu Moustapha mu sëriñ Touba jiite ñu ni mu ko daan defee at mu nekk euh, mbégte la ak sant yàlla bu baax a baax a baax. mbégte la sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu bàyyi ñu fa ay ati ati at ñu di ko def nañ ko doon def ak waay juróom ñu ko néew def moom ba ca kanam kanam donc am nañ mbégte bu baax a baax a baax. ku ne xam na ne moo ñu taxaw te duñu laaj affect maanaam climat réew mi démb gis nañu ay affrontement yu intense entre les jeunes de la la commune de Ngor surtout ak les forces de ci benn parcelle boo xam la gendarmerie da ko doon réclamer jeune ni lu ci dal euh, situation boobu na nga koo waaw xam nga àddina moom moo demee noonu dafa am li tubaab di wax ay wóo day baax léeg jàmm day am léeg day jax xool xam nga euh, nit dafa gaaw a jaxle rek waaye bu ñu xoolee li ñu wër ñu xam ne yàlla boo bind noonu àddunaam géej gi day dal ba yàgg mu jax lool ngelaw li day dal ba yàgg mu indi ngelaw loo nga xam ne mën naa yóbbu yóbbu sax ay kër addina mooy doxee noonu mais li ci am solo mooy dañu xam ni àddina bi ni muy doxee tey bokkul ak na mu doon doxee fanweeri at wala ñeent fukki at ci ginnaaw dem na ba ci biir kër yi lépp looy gis ci àddina ñi ko war a waxtaane dañ koy waxtaane ndax olof yi dañu wax ni eh, eh, euh, tàgg tàggu ku tàggu ku la tere yomb na kon bu fekkee ni dafa am ñoo nga xam ne am nañu lu war a def ci dëkk dëkk boo dem tey président la am na ku ko fa teewal muy meeru dëkk ba kon lu mu mënti donte nag lépp day jaar ci yoon it ka xam ne mooy jaraaf dëkk ba di meeru dëkk ba du wàññi dara waxtaan ak moom diisoo ak moom parce que maire bi mooy représente population représente état bi. mais ñoom jeunes yi ñu bañ ñu seet de gendarmerie mais le problème mooy que. ba collège la ñu bëggoon wala lycée wala poste santé wala du genre. mais mooy li wax ne li loolu la dama ni la. waxtaan dafa baax. waxtaan daf ci jiituwul donc àndam. voilà loolu daf ci baax parce que maire tey mooy représenter population di représenter état kon boo jaaree ci moom loo bëgg war nga ko mën am parce que bu mu juddoo ba tey tey laa mas a gis fu ñuy waxee ni bëgguñu njëfaram gendarmerie tey laa ko mas a gis ci àddina kon ñàkk waxtaan moo ko waral ki leen dama bëgg lycée wala jumaa kon xam ñoom jàppaguñu sax lan lañ fa bëgg a def kon ñooñu boo waxtaanee ñoom jàpp naa ni mën nañu juboo donc lépp rek dañ koy teg ci taabal jo waxtaane ko buñ ko waxtaane am naa yaakaar ci danañ ci am barki na ay religieux yëkkati seen seen kaddu ne buñ sañoon ñoom dox euh, médiation ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ndax gis nañu que procès boobu warta mën a taal réew non procès wurul taal réew du benn procès parce que ñaari doomu aadama ñoo ñoo jote du état ak nit du état ak état nit ak nit yooto donc ku mën a dox jàmm ci diggante ñaari nit wax dëgg ñun ay jullit la ñu l'islam la ñuy wax kon islam euh, euh, diine jàmm la kon ku ci mën a dox pour jàmm am alhamdulilah dañ ko def. dafa soutenir la troisième candidature du président. man dama mës a contre limitation nombre de mandats pour man mandat wu président kenn waru ko limiter kon trois xam nga démocratie mooy lan askan wi am sañ-sañu fal ki mu bëgg a fal Europe du ñu limiter. Espagne du limité Italie limité wul Angleterre limité wul euh, euh, Hollande limité wul ainsi de suite pourquoi ñun ñu bëgg ñu imposer limitation. da le président de la Macky Sall da gis le pré da gis le président Macky Sall c' est de la situation actuelle. ah oui c' est l' homme de la situation nag. parce que àddina moo demee noonu gis nga su ma gisee suñu peuple ñun mili homme politique yi ñuy werante ci ay ceeb ak damay rus parce que enjeu yi feneen la nekk bu ñu nekkee ci àddina boo nga xam ne tey day bëgg a tàkk ndax insécurité bu ñu amee kilifa goo xam ne mat na ko ba. rebelle yi am ñu fenn fu ñu ma dee dañ ko war a jàppale donc suñu débat tey dafa war a nekk débat wu naka la ñu def pour Sénégal pour Afrique àndandoo nekk benn pour mu mën a jëm kanam. surtout surtout surtout ak les nouvelles conflits aléas du pétrole nangam nangam gaz. moo tax ñu war a àndandoo def benn bloc bañ a xajal kenn parce que nag jaaykatu peinture joone ñi ngi taxaw fexe taal dëkk bi li bi ma ngay tàkk amatuñu dara ci pétrole te la fa doon génn ma nga fay génn ba léegi nañ